Ndiaye euh, bokk ci Yewwi Askan Wi ah. mhm. mais aussi tamit euh, nekkoon gëm sa bopp mhm. mais balaa ñuy dikk ci ñaar yooyu yëpp tey jii lan moo la yëkkati ba nga créé ab mouvement politique tuddee ko ànd taxawu Bambey waaw question boobu ma ko posé dama ciy sawar parce que euh, mouvement ànd taxawu Bambey mhm. li tax ñu créé ko parce que dañ gis ne Bambey mooy département bi nga xam ne presque moo département bi gën a ndóol ci département yëpp Bambey avancé wul Bambey sooy xool tey leader ya fa ne ma koy wax ñëpp di ko dégg mooy nekkuluñ fi askanu Bambey mais seen bopp lañ fa nekkal. Mhm. kon nag ñun am te am nañ ci part de responsabilité ñun ñi nga xam ne ay jeunes lañ. Mhm. parce que it Bambey lañ am Bambey fa lañ juddoo màggee fa yaroo fa. Mhm. kon mënuñu am lu ëpp Bambey. kon suñ demee ba xam ne ñun am na ci part de responsabilité yoon def nag ñu jóg indiwaat beneen politique bu beex muy politique de développement. moo tax ñu euh, a baax ba Euh, man li may wax rek gis nga politique euh, bi nga xam ne tey moom lañ fi fekk. te ñun ñi daan ko politiquer ñun dañu gisee feneen fu doonut foofu. ban genre politique. mooy politique de développement. parce que nit ñi euh, dama jàpp ne politique pour jëriñoo sa askan. daf war a jógee. élection jot nga ñëw jox nit ñi 1000 francs 2000 francs pour pour lépp rek sa intérêt personnel ñun dañ jàpp ne politique boobu dañ fi maanaam askan bi dañ ci war a dañ ci war a bàyyi xel yeewu ci parce que politique boobu c'est dépassé. moo tax nag ñu mu mouvement taxawu Bambey ñu ñëw taxawal dëggal suñu bopp wan population Bambey ne leen politique bi politique bi mën a yóbbu Bambey fenn fi mooy politique bi tey ñu leen tegal muy politique de développement. Mhm. maanaam suñu alal la ñuy jël di def ci biir di def ci askan bi. Euh, parce que it nit ki boo booy digle sangaay day fekk yow ngay sangu parce que it euh, nit ñi bëgg nañu yeewu mais gisuñu ko leen yee. Mhm. parce que euh, li la koy wan mooy tey Bambey insécurité totale moo fa amoon. ay làmp ay lamp lamp mbedd muy lampadaire yi ya nga xamante ni bi tey mairie moo ko waroon def c'est pas ñun population bi ñoo ko waroon def parce que mairie bi ñoo ko waroon def mais bu ñu demee tey bu mouvement And Taxawu Bambey tey di def éclairage public tey lampe boo gis tey muy DVF tey mouvement And Taxawu Bambey ñoo ko def ak yeneen i action ak yeneen i ya nga xamante ni bi tey waa Bambey gis nañ ne politique bi fi newoon politique gu naxaate la bii mooy politique gu dëgg léegi euh, loolu ngay def tax euh, doxoon sa diggante yow ak euh, Bougane ci gëm sa bopp finalement mm, ya yàggul seen diggante même ci local yi ñu ngi doon dégg sa am na benn jamono man xaw ma woon ni yow la ñu ne am na ñu àndoon gëm sa bopp mais bi ndem ba local yi jege àndatul ñu ñi ñi jàpp ni ab war la wala boog nguur gi da leen a jënd pour ngeen wan ginnaaw Bougane ngay dani seen diggante ak Bougane lan moo leen boole woon ak lan moo leen tàqale. Bougane comme li may wax chaque jour bu ñu ma invité dama koy wax Bougane li ma doon Bambey Bougane def ma ko je suis le coordinateur départemental gëm sa mais Bougane dafa fekkoon ma yor sama bu ñuy wax ànd taxaw Bambey nit dox sama diggante ak moom ma yaakaar am lu ma yaakaar ci moom parce que nit ñi parfois ni ñuy waxee ak ni ñuy doxee du doon benn bi mu audience bi amee ñu toog waxtaan ma ko lu leer biroom man ut ciwuma lu ma am ci yow parce que yàllaa ngi may suturaan Bambey laa am ku génne situation yi Bambey nekk ku leen ci génn situation yi loolu laay wër ak leader bi nga xamante ni bii li muy wax ak i jëfam boo ko xoolee day méngoo ñu ñu waxtaan juboo ànd ci euh, ñu ànd ci kaw ngor ak fulla ak fayda mais ba ma demee ba élection locale yi jot mu proposé ma comme ma doon comme candidat gëm sa bopp parce que nit ku ne it da ngay am kilifa man sama papa dafa yàgg ci seen politique bi PDS la nekkoon. Euh, nekkoon fi conseiller à l'Assemblée nationale doonoon fi adjoint au maire ministre Pape Diouf ay jamono. Mhm. moom moo ma woo parce que moom politigatul léegi parce que mag la. moo ne ma non da teel dugg ci poti yàlla teel la teg loxo bu bu bu ma sañoon doo doon candidat ma ma renoncé sama candidature jiite liste proportionnelle bi Moro bi ne nga xamante ni bii euh, Benno Bokk Yaakaar la jóge woon ñëw di suñu liste ñu ànd dem ci élection mais élection locale élection yi. moom Bougane daf ñu seetaan ci élection yi parce que candidat bi ñu togoon amut ay moyens parce que nit ñi nag bu ñu ñëwee ànd ak yow di liggéey ak yow dafa am benn côté bu ñu fa tollee yaa leen war a jàppale mais candidat bi amul i moyen man man sama propre moyen laa dégagé man sama propre moyen laa dégagé sama ñaari oto laa campagne ba campagne passé bi campagne passé li gën a rafet mooy ay nit bu ñu la nekkalee fenn di la liggéeyal mais au moins nga woo leen nga félicité leen au moins nga woo leen encouragé leen même bu dekkee sax du jox-jox bi parce que jox-jox bi mën naa ne am na solo amul solo parce que ñun yàllaa ngi ñu suuturaa topp ñu benn leader pour pour nga jox ñu la nga xam ne yàlla dénku ñu ko mhm. man nag panel bi ma bokkoon nga xam ne panel bi responsable yi ñoo fa nekkoon. Mhm. man maa fa njëkk a dugg. Mhm. maa njëkk a dugg ba élection yi passé ba des un mois parce que dama ne man politique je suis libre man bokkuma ci ñi nga xam ne dañuy topp ci politiciens yi yaakaar nañu leen politique bi joxut am duñ ko am man góoma loolu te du ma doon xaram kenn. ci ñëpp nag laa yemale tous les leaders. dama bëgg am sama liberté yi yi nga balaa may jox saa yi nga yëkkatoon ci kanam Bougane moo tax mu ragal la. mooy sama mouvement bi du Zik FM du Sen TV. waxoon nag ko ci groupe bi laa ko waxee. ci panel bi laa ko waxee. parce que bi mu passé félicité wul nit ñi faale wul nit ñi lijjanti nit ñi mel ni yow nit ñi nawloo woo leen man maa dugg ci biir ne ko damaa bëgg nga xam ñaari yu bëriwul. ñun li ñu doon bàmbay defoo ñu ko parce que fa lañ juddoo màggee fa te kenn jëppewuñu fa li ñu am ñu ngi koy bokk ak ñoom Euh, li ma la mën a xamal mooy gëm sa bopp du Zik FM no non du Zik FM du Sen TV parce que ñoom yaa leen di fay say employé su la neexee bu ñu la message nga bañ leen tontu bu ñu la woowee nga bañ leen jël mais ñun am nañ mat gu toll ni kuñ woo jëlooñu ñu fi ñu war a teg ñu jël suñu responsabilité ci laa jël samay responsabilité suspendre tout mes activité gëm sa bopp après la rendre sama démission génn gëm sa bopp. gars yi ne moo la woowoon. non état bi pour nga saboter liste bi quoi. non non non man du façon boobu parce que nee naa la. local yi yooyu bari woon na ci de. non non non non non non non man su man du ma façon nit boobu mais élection législative bi mu ñëwee. Hmm. yebal na nit sama kër. ci télé laay waxee. Hmm. un certain Guèye moo ñëw sama kër ne Bougane moo ñu fi yebal pour ñu ñëw seet si la jéem a waxtaanaat nangam nangam man la ma wax c'est clair et nit da ngay doon opposant wala nga doon pouvoir mais doxalin bi man góoma ko moo tax ma génn gëm sa bopp. ci la ci la ah, bi bi élection législative yi ñëwee ci laa demee Yewwi Askan Wi. bala ma jox saa balaa ñu egg ci Yewwi. <coughs> yow léegi nee nga sa papa nga déglu euh, moom nga moo la wax ne la daal euh, bul nekk candidat wax na la lu tax bul nekk candidat. non li tax mu wax ma bul nekk candidat. Mm. parce que mën na ne dafa teel. parce que xam nga parfois amul mën na ne a a tax mu ne la bu nekk eh, naan lii la ma wax raison yi saa sama wax boo déggee dama ne la dafa teel li ma la kay c'est clair bon loolu da nga koo bëgg dafa teel ci mun dafa teel naam sama dayo bi war a tex tey may euh, may ma ma may dem élection local hmm. moom jàpp na ne teel na hmm. mën na jàpp ne élection local sa demande de moyens hmm. ou bien temps bi ma temps bi ma dugg ci politique may may dem élection local loolu daal yow yaa ko defar noonu quoi non gis-gisam la te question defar dañ ne la dafa teel rek nga ba saa saa man déggoo li ma la ah, loolu la wax de saa ku ma xam Bambey nga xam ne man waaw sama waajur mooy sama premier sa mouvement bi bi nga koy taxawal xam nga boo taxaw moom moo tax yow yaa taxawal sa mouvement wala déedéet maa ko taxawal waaw mouvement bi bi nga koy taxawal moom lan la la ci wax laajoon nga ko mouvement bi dañaa laaj man du def dara lu sama papa yëgul déggoo li ma la wax Mm. déedéet voilà léegi eh, yaa ngi wax Bougane ne ko sa mu sa kii bi du Zig FM du du du Sen TV. waaw ñooñu yaa leen di fay et cetera loolu mooy li nga xamante ni yow nee nga moom nga wax Bougane c'est est-ce que pareen saay tamit eh, yenn genre bëgg a gëree est-ce que tamit eh, du tax kii parce que ba léegi li nga xamante ni moom nga expliquer ne Bougane moom la leen def maanaam daf leen a respecté wul wala joxu leen xaalis te yow wax nga sànq ci sa biir wax nga ne bu ngeen di politique politique leen pour ay moyens ak xaalis ak affaire yooyu te loolu mooy li nga xamante ni moom nga wax wane nga ni Bougane joxu leen xaalis est que ñàkk a jox xaalis boobu mu leen ñàkk a jox xaalis ngeen gis ni waa jii kat parce que Bougane buy ñëw nit ñi dañuy defee ne milliardaire buy ñëw la te gis nañ ko muy maye fële ay 10 millions muy maye fële kële le fait que joxu leen dara ba noppi Euh, ngeen dem ba gis mbir yi est-ce que yaakaaru leen ni lii kat liñ yaakaaroon ci alal amu fa nañ ko ba. waaw léegi dama bëgg parce que dafa mel ni da saa saa yu doo déglu parce que léeg-léeg war na dooy déglu mooy. Hmm. dama taalal micro bi may wax nga koy fay di naqasaale loolu yëpp mbiru tappale la dinaa la ko taal. waaw léegi moom moo ko voilà. <laughs> bu laalaat foofu. Eh, saa li ma la li ma la mën a nga li bëgg dégg moom nga bëgg a dégg mooy yow li nga bëgg a dégg mooy xaalis bi. dama ne la ñun yàlla daf nuy suturaal démb te gis ñu bari dañoo ànd ak bugaan ndax ndax xaalis bi tamit non non bi muy ñëw ñëpp dañ ne milliardaire bu dugg ci politique la non attends wax la nit nit buñ lay yëg ci xam nga man lan laay jàppee nit yëg-yëg yëg-yëg parce que yëg-yëg bi mooy nit ñi bu ñu demalee sa liste mm-hmm. bu ñu génnee élection locale yoon def na nga woowaat tous les responsables remercier leen. au mm-hmm. moins. Mm-hmm. mais defu ko. encouragé wul nit ñi remercier wul nit ñi toog ab xam mel ni moom daal moom ak waa këram sa waa kër sax sa mm-hmm. waa kër. doom ji nga jur sax. boo ko yónnee mu ñëw même booy jël yónnee bi war nga ko wax merci. waaw loolu au moins man foofu laay waxee. mais waxu moo waxu ay jo ay parce que bu doon joxe joxe ma dem bi Bennoo Bokk Yaakaar. mais parti au mais parrain saay boo boo xasee ba njëkk a dem parrain saay mën nga peser sa bopp natt kii pour soog a mën a jar dara fi mu doon saa yi jaragoo dara. non man ñaari lamp nga fa changé. bëgg a tëb di wax naan nii ak naa sama mouvement bi. du gën a fi xam nga jo xam nga saa a xam. <laughs> li fay ci na micro ah, fay. li may li may li may li may peser waaw dëkkoo Bambey li ñu waxante dëgg saa. waaw waaw waa Bambey ak ñuy seetaan non déglu rek. xam nga waa Bambey ak ñuy seetaan déglu man waa Bambey laay waxal. waa Bambey laay waxal ak waa Sénégal laay waxal. waaw mais saa njoogu mii. waaw lu may posé Bambey xamul lu ma posé wut Bambey. gis nga hmm. man. Hmm. boo bëggee xam li may jar Bambey dëgg. ak lu may posé Bambey da ngay dem ba Bambey laaj ma waa Bambey. Hmm. xam nga émission mbedd mi waaw jël naa ko yóbbu ko Bambey. temps yi nga xam ne nawet bi. Bambey problème yu am yëpp génne naa ko yi nga xamante ni jàmbatu askan bi la. génne naa ko exposé ko. man li ngay wax nii ci Bambey dafa mel na lépp ak léppool ci man xam nga lu tax. Mhm. Aïda Mbodj dafa fa nekk. Mhm. yeneen responsable politique nekk fa. Mhm. fi mu nekk nii turu turu Aïda Mbodj ak Bambey dañ ko kole mhm. ndax dañ ni Bambey moom la ñu déggal moom la ñu bëgg et tout. élection bu mu fa dem ak yéen. wala ñeneen. gañe leen lamine leen ba ñu bëgg a dee. mais tey jii boo ñëwee taxaw naan ma Bambey ña fa nekk seen bopp lañ fa nekkal day nekk beneen discours ci man sama nopp xam naa tamit ci nopp sénégalais yi. non xam nga Bambey. Euh, dafa am la nga xam ne dafa am. gis nga tey. man bokk lu ñu lu fa def ma mën cee teg sama loxo ne lii ñoo ko fa def. Mm. gisuma ko. kon Aïda Mbodj nekk na fi ministre nekk na fi lu nekk deful dara. Bambey li ma la wax Aïda Mbodj li mu def Bambey. waaw bu fekkee def na fa. waaw la mu waroon rek dafa ëpp fuuf parce que Aïda Mbodj poste sous responsabilité bu ne. mais mënoo reconnaître mënoo wax taxaw fii. man mënumaa teg ne na ko fa. Mm. def fa dara li ngay wax non gisuma ko. benn centre laa fa gis. centre commercial te lee du centre commercial. ah non non non ah. nag il faut être il faut ñu wax. Ah parce que gis mm. man ma fa dëkk xam naa bu baax li ñuy dund ñoom ñu ngi may gis di ma dégg émission mbedd mi ku ko fa def xam nga man dama ne avant may génn damay def émission mbedd ba ñëpp teg seen bët ni Bambey di dund Bambey <coughs> amul assainissement Bambey amul assainissement Bambey commune biir commune am na ko nga amuñu ndox amuñu courant kuñ la fayee di ko gëm mais lan nan ngay expliquer durant des années ay dëmbooj ku mu demal élection rey la non xam nga ci Bambey xam nga euh, waaw dafa ah, ndàkk xam nga le problème qui se pose mooy non dafa ndàkk parce que politique bi ñuy politique moo baaxul APR Mm-hmm. bennoo boo ko yaakaar su fekkoon mat nañ lañ waroon a mat dëgg lal Macky Sall maanaam tey liggéeyal Macky Sall Bambey liggéey pour askanu Bambey Aïda Mbodj waxatuñ ko Mor Ngom dee na politiquement ma Ngom moom waxu may waxam kooku moom nii nii nii yéen bokk fi ngeen nekk ñoo bokk fi ñu lu tax demoo ci moom ngeen waxtaan non ngeen suqalee Bambey xam nga élection législative dama dem ànd ak ñoom mm. parce que dama jàpp ne rupture dafa war a am assemblée nationale moo tax ma jël sama mouvement dem yeewi askanu wi sans condition mi ngi may dégg joxuma budget a campagne. joxuma ñaari dërëm. parce que pour lan sanctionné waa APR. Benno Bokk Yaakaar parce que dara defuñu ko Bambey waa Benno Bokk Yaakaar ñoo gën a yées ñëpp. Hmm. ñi ne Bambey ñoo gën a yées nekkuluñ fa benn su seen bopp lañ fa nekkal mais nekkul fa askanu Bambey. sax laal na si tuuti mooy yow da nga wax ne bi ngay créer mouvement pour lan la woon. waaw mouvement bi ma koy créer. pour taxawu bàmbaye tax tax. waaw ba tey parce que tàllamp la ba parce que ña ko defal gis nañ ko. mooy defoo ko pour dem élection wala pour. jiite dama ko def pour non xam nga mouvement bi mouvement politique la. Mm-hmm. mouvement politique la parce que dem na élection législative def na élection locale dem na élection législative. no da nga ne parce que dama dégg si dama dégg si Bougane. ci bañ ci dama non si si si fi mu waxee da ne sa papa da wax nga renoncer pour kii bi parce que dama gis ne ku créé mouvement politique. parce que it nit ku ne sa kilifa nga am que man sama kilifa kaay ma xamal leen ko. saa yi daal di a quoi saa dinaa la wax ñaar nandite maa ngay dox ci sunu ruubee ba xoolu kilifa man lay dajal moo tax moo tax xam nga. Ah. Eh, eh, foofu lay bëgg <laughs> foofu lay téye foofu lay joué quoi. kii bu la fa téye nag Sénégal gépp la ñaan waaw ah, kii dafa ma foofu laa doon kii lu dama laajoon ko loolu mooy xam nga damay gis ne mouvement politique moom normalement boo ko amee nga am chance dem si barrière kenn da ngay pour pour jéem a nekk. ñu bëgg laa jiital parce que boo renoncé tey suba nga suba nga kii quoi. foofu laa waxee moo tax tey supposons. Mm. législative yi élection euh, locale yi di ñëw. bu ñu fi ah, fekk bu ñu fi yàlla ah, bàyyi ak jàmm. dama lay wax dama lay jox parce que am nañ vision. benn boo ci na ba tey dañuy ñëw di bootu ay nit. <laughs> bu doon bootu xam nga la supposons tey élection locale yi mënoon naa dem ci moom te mënoon naa bokk ci ñi muy investir. mais man damaa gëm ne man damaa parce que leader yëpp a ci yem. koo ci bootu ci ginnaawam mi ngi daas paaka teg fu mu la mën a rendee rek lay xaar. Mm. sa wax bi nga commencé ba léegi mooy yow am nga kilifa mooy sa waajur. Mm-hmm. mais nangoo am beneen kilifa. Mm. te politique il faut nga am kilifa. surtout boo nekkee jeune. dugg ci dara sa digganteeg Bougane romb nañ ko tey jii yaa ngi ci biir yeey bi mais bugg ni nga waxee nangoo Aïda Mbodj doon sa kilifa. non sa pas question doonu ma nanguwuma. mais est-ce que nekkul ni da ngay da ngay jaayu. sànq saa xaw na ko dama Aïda Mbodj dama koo xam. dama ko xam dama leen xam ñoom leader yi ne Bambey yëpp bëgguñu benn jeune perse hmm? ah, non non non ah. bëgguñu ko. mais Aïda Mbodj doo ko waxal loolu. non parce que Aïda tey jii ñëpp xam nañ bu bëggoon doon maire Bambey da koy doon parce que ñaari yoon a ngi gànna gànna non déglu ma déglu ma déglu ma rek après nga tontu ma gànna gànna bi muy doon maire uh-huh. Aïda Mbodj moo ko samp mu doon maire mu war ko dem APR ki fi nekkoon nii ci élection yu ñu mujj mm-hmm. moom tamit bi Aïda Mbodj sampee mu doon maire ci turu Yewwi mu bàyyi ko fa dem APR mm-hmm. tey jii kooku doone ma buggul kenn ku émerger parce que bu bëggoon ku bu bañoon ku émerger jëmmam lay teg waaw ah. Ah. Aïda Mbodj daf ne tollootuma fu muy xëccooti maire na leer postu maire bi c'est mais seetaanul mais seetaanul mais parce que li la koy wan mooy hmm. Aïda Mbodj amoon na ay jeunes yu nekkoon ak moom biir hmm. Yewwi waa Pastef ñu ngi woon biir Yewwi hmm. pourquoi mu jël benn transhumant ba nga xam ne même pas un mois ñëw rejoindre ko mu teg ko samp ko effacé ñëpp fu mu ko teg fan la ko tudd. mais est-ce que nekkul kooku moo ëppoon légitimité. Ah, non non non non non. parce que dénk ko woo Bambey lañ dëkk xam nañ li fa am. mënoo nekk ak man damaa xam ay rëmbo jeunes yi ko jeunes yi ko ka jeunes yi ah, ah, nekk ak moom dama leen a xam. ay jeunes yi nga xamante ni bii booy yu am engagement. mais jeunes yooyu kenn déggu leen. booy ya nga non da nga may dëgg da nga may dëgg. loolu moo fi am. loolu loolu du yoon comprendre nga dem jëli Assane Diam mi nga xam ne. suñ gëm sa bopp li njëkk sax war ñu dem yeewi bi mu demee yeewi yeewi investir ko ay rëmbo jël ko teg ko ci kaw ñam fa fekk investir ko man moo tax damay euh, gis nga Assane Assane dama koy encouragé li mu def di ko félicité jël jë jël mairie ba la def yóbbul Macky Sall parce que fa la jógee ah. Hmm. parce que bu ñu amee ñàkk fulla ak ñàkk fayda gu toll ni mu jógee euh, Benno Bokk Yaakaar ñëw Aïda Mbodj investir ko jeunes yi ñoom it ñàkk fayda topp ko ba fal ko mu jëlaat mairie bi yóbbul Macky Sall si aussi simple que ça. mais yow est-ce que nekkul ni tey jii. Hmm, xaxar xaxar nga waa gëm sa bopp xaxar Aïda Mbodj est-ce que nekkul ni nag da ngay jaayu. pour jar ci kanam waa nguur gi ñoom Mor Ngom ñëw xëcc la yóbbu la président ak yooyu Mor Ngom recevoir na ma gis nga su ma bëggoon dem ci nguur waxatuñ ko damaa bëgg nga xam ne li may wax waxuma pour xaxaar ay mbuuj waxuma pour xaxaar xam nga man ban leader laa moo tax danañ dinañ am problème te dañ ko gën a am leader ba nga dafa sañ di wax lii nga xam ne mooy dëgg kenn amul courage yu taxaw wax li nga xam ne moo am non loo dëgg dëgg la leneen leneen la on se dit la vérité mais nangu am kilifa aussi tamit ci politique. non nangu naa ko de ça dépend. léegi lu may gëm sa bopp ay demul. Eh, am nangu am kilifa. xam nga ban kilifa laa bëgg am. non may ma wax la xam nga ban kilifa laa bëgg am. wala wala patriote nga. Ah. Sa Ndiogou ban ah. ban ban kilifa laa bëgg am. kilifa kilifa. gan la. Hmm. kilifa gi nga xamante ne bii gis nga ku ragal sa ku bañ sa dondin. sa dee lay ñaaw nit ki li mu mérité jox ko ko. Hmm. man tey su fekkee benn post dafee ne ma gis jeune bu ma ko gën a mérité. Ah. mais nañ ko ko jox. mais li ngay peese xamaguñ ko ah li ngay peese xamaguñ ko. may peese moom saay jeune bu ne Bambey. fii lay waxee non attends wax la. du hmm. question taal lampe. ku nekk xam nga ku nekk xam nga non attends ma wax la Bambey ku ne xam nga li ngay pesé. Hmm. ñun doofu ñu jàpp jàppuñu jeunesse ba fa ne. Hmm. ku ci xam nga ku am mbooloo ku amul mbooloo. man li tax ma ne la. dama jël ber sama daarooy boobu maa xam li tax ma def ko. parce que je waaw d'accord léegi yow da nga ni. mouvement bi mi ngi tudd taxawu Bambey. kañ la judd. mouvement bi ça fait deux ans. deux ans yooyu nga wax taxaw Bambey ci lan nga taxaw Bambey à part lamp ñaari lamp yi. waaw waaw lax la loolu laa bëggoon nga ñëw nag. Ah? xam nga su ma sañee toog fii rek am na tax ma sañ fee toog. Euh, li ma njëkk a def mooy. laaj bi da ko doon éclairage public. laaj bi da nga ko public def naa ko. muy lamp mbedd yi nga xamante bi tey mairie bi moo ko waroon def. defuñu ko autorité fa nekk kenn da ko ca def man yoruma benn doom ak tànk. Mhm. man sama liggéeyu bopp laa yor. di ci dimbali waa Bambey. Mhm. bi loolu passé def naa fi reboisement Bambey ay garab yi nii rek a fa Mhm. fii laa comme fii laa euh, réglé sama sama prix euh, journée de reboisement 600 garab 700 garab laa jëlee fii transporté ko yóbbu ko Bambey mhm. nit ñi génn ñu def reboisement set sa tal ñu ngi may dégg waa Bambey ñu ngi may xool xaaruma ci mairie xaaruma ci kenn chaque jour maa ngi ci maa ngi ci terrain bi de ñaar ku feebar maa ngi faj maa ngi faj ñi nga xam ne tey sama doole fa la ma fa ak leneen ak leneen. Ah, mus naa toog no ah, non déggoo li ma la xam nga ba ma defee. garab mairie bi boo leen ci tàggoo dañuy fa la nekk. dañ leen bloqué parce que lépp wala signé kayit bàyyi ko ba garab ya moom lu baax seen lépp nag xam nga moom li nga wax moo tax jeune bu jóg pour liggéey au lieu ñu accompagner li ñu ngi xool booy bi suñ ko jàppalee kat suba mën na cee gagné daal ah. man gisewuma foofu waa Bambey war nañ laa taxaw pour jàppale pour jàppale askanu Bambey dañ a dañ ko war a encourager la pousse mu gën a xam politique hmm. mais tey jii ah naa mooy dernière léegi léegi euh, xam ne des fois ñi ànd ak maquette comme Sourou Sène moom doon déglu ca grand jury pour nga xam ci réew mi jamono yi ñi far opposition pouvoir benn laaj nga leen laaj ban xalaat nga am ci troisième mandat troisième mandat ban ban xalaat laa laaj ci troisième mandat bi ñuy wax ci réew mi troisième mandat bi li ma ci waxoon waxaat naa ko ci du waxoon naa ko nee la man troisième mandat bu naree yee fitna parce que nañ waxante dëgg fitna bu amee sunu sunu sunu doom yi rek ci dee. ak sunu ak sunu tuut tànk yi. Mm. doo gis benn tey. manifestation léegi mais tontu ci laaj. waaw da nga may déglu yaa ngi ñëw ci soo ma dégloo. ma wax la d' accord d' accord dama ne. dama mm. bu fekkee validé na candidat. Euh, déglu président de la république. Mm. lan nga bëgg. nit ñi dañu génn ci mbedd bi. kon yow bu dee ni validé nañ ko Macky mu doon candidat yi du sa problème yow. du sama problème nañ organiser wu def ni ñu def Ablaye c'est aussi simple que ça. parce que hmm. Macky Sall ni ma ko gisee. Hmm. troisième mandat bi bus bu ko bus bu jëlee décision pour teg ko gisuma lu mën a tee ba du dem yéen yéen a ma gën a xam Macky Sall man nag je ne pas d' accord pour ñuy génne jeunesse bi ci mbedd yi ku dee yaa perte. fii laa la ko waxee. d' accord du benn responsable. kon ànd na ci troisième mandat. bu jeexee foofu euh, ah, non kon moom koy ànd na ci. waa lekk ngeen yow bu bu wujjee gars rek duma bett. lu tax nga wax ko. waaw ah. saa yi xam nga la moo tax loolu il mu wax ci. parce que xam nga Sénégal lan mooy problème ku nekk am nga droit wax sa gëm-gëm. ku ci nekk am nga droit wax li nga gëm. ak sa xalaat quoi. mais bàyyi leen ku wax rek ngeen ne non fii la jëm wala fële la jëm. man maa ngi maa ngi wax ak opposition bi sax laa gën a waxal jamono jii may wax ak yow ay leader opposition yi nga xam buñ sañoon tàllal nañ ma loxo uh-huh. kon nag maa ngi leen di gërëm leen ñëpp di sant ñëpp di rafetlu invitation bi di gërëm waa Bambey di leen sant parce que lu ma doon ñoom la ok je vous <laughs> xaw nañ ko gëtëng mais noonu la garab boobu mu meññi wadal dara da nga koy gësam euh, Pape Amadou Ndiaye oustaz ah, ñu lay jaajëfal.